jigéenu prix li ñuy gën di yëngu comme jigéen yi nga xamante ni ñun dañuy liggéey ak ñoom ñëpp dañuy liggéey ak ñoom surtout ay association de femmes muy Pire muy daal le département de Tivaouane wala dans d'autres départements mooy euh, fexe ba daal jigéen ñi seen koom gën a yokk mais aussi seen ay xam-xam gën a yokk loolu nag surtout ñun ci formation bi la ñuy viser puisque en général c'est des associations de femmes yoo xam ne ñu ci bëri jànguñu donc li ñuy def rek mooy surtout axé suñuy intervention ci formation yoo xam ne day yokk seen mën-mën nga xam ne dinañ ci sukkandiku pour yokk tamit li ñuy am donc suñuy activité yëpp presque ci loolu lañ koy accès mais aussi yokk seen xam-xam ba nga xamante ni liñ naan la gestion de la chose publique ñoom it dinañ ci gën a dugal seen loxo parce que bi ñuy commencé intervenir fii ci Pire en 2007 benn conseillère moo mosoon am fii 2009 ñu ñëw ñu fexe ba 8 am ba léegi parité bi ñëw na nag ñu bëri nekk conseillère mais tamit bëri tamit xamuñu lu bëri ci lan mooy texte de loi yeeg ak surtout ak trois bi donc loolu du Pire rek département de Tivaouane comme Sénégal gi yëpp la ñu bëri tey jigéen ñi laay wax sax nekk nañ conseillère mais parité rek moo tax ñu nekk conseillère elle n'était pas préparée donc dañu def lii pour gën leen xamal lan mooy décentralisation foofu ñu toog di fa toogal seen askan tam lan lañ fa war a toogee lan la yoon wax lan lan la texte yi wax ñu gën a maîtriser texte yi ba nga xam ni dysfonctionnement yu bëri daan am dootul amati. loolu daal moo tax ñu organiser tey atelier bi beneen session bi ñu ngi koy def au mois de janvier pour loolu nag ci processus budgétaire ak naka la ñuy gérer surtout la gestion financière ci lañ koy accès deuxième phase bi. Euh, solo bu atelier bi am pour tàggat jigéen ñi solo bi euh, vraiment lu ñu koy xayma am na doole trop parce que comme nu ma ko waxee léegi jigéen dafa am euh, place bu am solo. ci wàllu koom suñu réew ci wàllu jëmale réew bi ci kanam parce que dañoo nekk euh, ñi nga xam ne dañoo yëngu jigéen dafa yëngu am aussi euh, euh, seen loxo ñu fekk fu ne maanaam ci wàllu développement aussi ba tax na ne tàggat leen dajale leen boole leen ak jàngal leen maanaam nu ñuy yore yenn jumtukaay yi nu ñuy moomee seen bopp maanaam ci nu ñuy waxee auto autonomisation ak nu ñuy xamee réforme yi nga xam ne ne dañ ko sumb ci réew mi pour suqali d'abord ñoom seen bopp suqali seen gox ngir réew mi jëm kanam donc loolu lu am solo la euh, pour ñu moo tax it euh, saa su ne yëngu-yëngu bu nga bu ñuy def ci wàllu euh, développement jigéen du ci des gannaaw ñoom lañ ci gën a jiitam parce que xam nañ seen mën-mën ak seen seen kattan maanaam ci mun a jàpp ci lépp lu nga xam ne du sumb nañ ko pour euh, suqali euh, seen nekkin ak nekkinu réew mi